Votre bulletin d'information communale, BIC. Assalamu alaikum. Wa Fatma de Sall. président de la République Macky Sall candidat à la réélection Manglendi Dylan sargal tey bés bu màgg la ci Sénégal bés la boo xamante ni benn page dafay tëju benn page bu bes ci jéegu ndax dafa am importance ku nekk da nga am saa soo xamante ni yaa ko moom ma romb nañu moment bi nga xamante ni candidat yu bëri takku ci lim ñu ngi wër Sénégal ku ci nekk di wut parrainage romb yi romb nañu moment bi nga xamante ni conseil constitutionnel segg na parrainage yi ba am juróomi candidat gis ngeen fan yi yépp coalition yi nga xam ne amuñu candidat ñi ngi naan diw laa faral ñële ngi naan kii laa faral loolu nag moo nekkoon jamono politiciens yi jamono ci Fatmata Sall ci ji tey nag mooy jamono citoyen yi ndax neexul ba neexul parti politique yi bari nañ Sénégal lool waaye nag citoyen yi ñoom ñoo yor souveraineté war a tànn kan mooy président de la république loolu moo tax ma ne jàmbaar ji ñuy wooyee Fatmata Sall te ñu xam ko ci Sénégal fanweeri at yi weesu mu taxaw ci développement ne moom développement dong moo ko yitteel kenn mosu koo gis ci benn parti politique donc mu nekk benn citoyen modèle militant du développement bu ñëwee tey ànd ak ay junniy junniy jigéen ñi ko doon gunge ci wàllu développement décidé tey ne mosul dugg ci langue politique waaye tey gis na koo xamante ni ñoom ñoo bokk gis-gis ci Sénégal ñoo bokk bëgg-bëgg ci Sénégal waaye ñoo bokk doxalin ci Sénégal muy le candidat Macky Sall mu décidé historiquement def lu mu mosul def mooy am candidat ci élection présidentielle looloo tax ma ne ma sœur Fatmata Sall ubbi nga page bu bees à partir d'aujourd'hui waaye ki nga décidé jàppale yow ak les dizaines de milliers de femmes yi nekk ci fête des Fatmata Sall ku jar a jàppale la ndax dama ne bu fekkee juróomi candidat ñoo am ñeenti ñi moom dañuy ñëw nañu dañ leen bëgg a yóbbu fii waaye xamuñu fan la kenn ki moom dañu dund ak moom juróom-ñaari at mu nekk président de la république moom liñ ko war a laaj mooy li liggéey juróom-ñaari at yi lan la waaye defe naa ne Sénégal tey boo dajee xale bu am fukki at nga ne ko lan mooy bilan Macky Sall mën na la limal ila Touba mën na la limal pont Farafeñe mën na la limal Dakar Arena mën na la limal couverture maladie universelle mën na la limal arène nationale mën na la limal aéroport de Diass mën na la limal autoroute Diass Mbour mën na la limal poow Farafeñe mën na la limal poow Foundiougne mën na la limal gaz bu wàññeeku mën na la limal courant bu coupétul mën na la limal césarienne gratuite mën na la limal financement DER gone goo laajte loolu ci Sénégal mën na la limal loolu waaw ma ne kii nga xamante ni booy lim la mu liggéey ci réew mi mënuloo ko pare ak ña nga xamante ni dañuy ñëw di yelwaan suñu baat te xamuñ fa ñu jëme ndax tànn bi yomb na defe naa tànn boobu dana yomb lool loolu moo tax ma sœur sa càmmiñ sa xarit ku la fonk lool waaye ku ràññee sa liggéey muy la président Macky yebal ma fii ma ànd ak Ablaye Sow moo ma ne soo demee nga waxal ma Fatmata ma sœur ne ko tournée yi muy def ci réew mi yépp maa ngi koy xool di xam liggéey bi muy def ci terrain bi te yónneewu ma ndaw defuma signalement pour ma financer ko yëgluwul pour ma yëg ko mu ne boo demee nga waxal ma sama sœur ne emploi yi muy créer à travers ces finance financements nombreux waye lien social bi mu am ak nit ñi yépp maa ngi koy yëg te yëgluwul yónneewu ma ndaw laajuma financement président nee na mu ngi lay sant ci la gërëm ndax sa liggéey rafet na waaye mu ngi lay yëgal ne liggéey bii nga sumb at yu bari ba tey nga jël décision historique ñëw rejoindre ko jàppale ko liggéey bobu la fas yene yok gannaaw buñ ko renouveler mandat am le 24 février le président le président de la république Macky Sall néna na la rassurer parce que xamna né yow ben préoccupation nga am muy jigéen ñi ak xalé yi am na gaa jéego yu bëri ñu ci ñaari direction yooyu waaye à partir du mois de mars 2019, nous dix que nañu Sénégal bu bees mooy Sénégal boo xamante les ressources consacrées au volet social au développement seront encore multipliées parce que ku xam Macky Sall xam na non seulement il a la fibre patriotique mais il a la fibre sociale askan wi la faral kon nag am na tambali bu ñu tàmbali waaye bu dess te bëgg na nga bok ci ñi nekk ci wetam di doxal yoon bobu pour le pour l'intérêt du Sénégal bandirabe président macky sall wi on on jaarama sohna fammata bane gorko ganduɗomo tinɗomo wima a jarama saabu min komi nelaɗo tan yimɓe foof ne gandi mi darotaako e nokku mo makkisal nelaani kam e ko goonga noon ko ooɗo gorko dariiɗo ablay sow tintini kam wonde oɗon jogii mo ooɗo mobilisation mawɗo kono caggal ndeen mi noddi bane gorko président makkisal haalande mum wi kam min ni mbinomomi ko oɗo événement ne mawni no fewi te min mbiɗa jogui activité ji kewɗi guejo way est ce que a nelata ministre goto yahanma toon o wi kam ala fatmata ko bandi en donc an il faut que mi nelma an woni miñam comme ça o anda ɗo dargue kam ɗo nettideyam o wi kala ko jaggunoɗa hay sa woppani ya heƴnu hen oɗo événement jaaha toon daroɗa ɗon mbiyamo o jaram mi yi ligguey makko no foti paatmata bande gorko wima tournée ji ɗi mbaɗannoɗa ɗi financement uji ɗi dokkata ɗi haala belka kaltaka beele yimmine mballamo kanko makkisal fof a tini kono noon a nelaani e makko nelaaɗo a tentinaani mo par ce que mbaɗirɗaa tan ko sabi allah e yidde mo o wi omo yettuma no feewi o wi ma noon ngannda so ɗum ɗo ɓenni haa allah rokki en sago men haa gañoɗen le 24 février so allah jaɓii omo yiɗi chers membres des fêtes de Fatmata je voudrais après m'être excusé pour ce retard dû à des activités politiques dans ma localité, ma chère localité Guédiawaï. Je voudrais m'excuser, mais en plus de ça, je voudrais féliciter notre sœur Fatimata Sall pour cette formidable mobilisation de cet après-midi dans cette historique salle de l'unité africaine. Fatmata, ton frère, le président Macky Sall, m'a demandé de te transmettre ses félicitations et ses salutations. Il m'a demandé de te dire qu'il suit attentivement les tournées de sensibilisation à travers le pays, les tournées de soutien à sa candidature, mais auparavant, avant tout cela, les nombreuses initiatives en faveur des femmes notamment à travers des financements pour l'autonomisation. Il a suivi tout cela. Il sait aussi que tu n'as fait aucun effort particulier pour essayer de montrer ton mérite, que tu ne lui as envoyé personne pour essayer de lui démontrer que tu étais efficace, contrairement à ce que beaucoup d'autres font. Il sait tout cela et il sait que ton engagement à ses côtés est un engagement sincère, un engagement sérieux, mais un engagement efficace parce qu'il connaît l'ampleur des fêtes de Sall. Il sait bien mesurer les dizaines de milliers de femmes à travers les fêtes de Sall et il vous en remercie. Ton frère le candidat Macky Sall me demande de te dire, de te rassurer, parce qu'il sait que tu n'es préoccupé que par le développement et notamment par le soutien aux femmes. De te rassurer et de te dire que certes de nombreux efforts ont été fournis pour les femmes du Sénégal, mais qu'à partir du 25 février c'est une nouvelle page qui va se tourner parce que les actions envers les femmes et les jeunes vont être encore multipliées et il aimerait que vous puissiez gagner ensemble et que vous puissiez l'accompagner pour mettre en œuvre les ambitieux programmes qu'il a en faveur des femmes et des jeunes. C'est ces quelques mots que je voudrais prononcer en tant que messager du chef de l'État, messager de votre frère, encore une fois de plus, je voudrais remercier notre frère Abdoulaye Sow qui, tous les jours, comme vous direz, infatigable, sillonne les chantiers sableux de la banlieue de Dakar, tous les quartiers de l'agglomération dakaroise, jusqu'à Kermassar, Djamnyadjo, Sangalkam, Sebikotan, tout ça pour aller unifier les forces en faveur du président de la République pour aller mobiliser toutes les ressources nécessaires pour une réélection dès le premier tour. Abdoulaye, merci beaucoup. Je voudrais terminer. Je voudrais terminer par un petit, par un petit appel. Certes, nous savons que le président Macky Sall a aujourd'hui une écrasante majorité au Sénégal. Mais nous ne voulons pas seulement une écrasante victoire. Nous voulons une victoire, ce qu'on appelle sans bavure. Pour cela, il faut écouter attentivement les recommandations de Fatma Tessal c'est-à-dire nous engager résolument dans la bataille électorale, mais par les idées et éviter la violence, car la violence ne favorise que l'adversaire. Je voudrais vous dire pour terminer qu'il ne faut pas négliger les jeunes et les primo-votants qui se trouvent dans vos maisons et qu'il faut aller convaincre, et c'est facile de les convaincre parce que c'est facile de montrer les réalisations du président de la République. Il faut les trouver dans les maisons, il faut les trouver dans les daïras, il faut les trouver dans les daras, il faut les trouver dans les ateliers, dans les marchés, partout où besoin est, pour que, ensemble, qu'il y ait une formidable mobilisation dans un seul sens, qui est le sens intelligent qui est le sens patriotique en faveur du Sénégal pour la réélection du président de la République le 24 février.